يا مرحبا بسيد الأبناء حضرته حبا له مولاه يا سيد المولاه قد دعاه لحبه إياه واتباه شرع جبرائيل سمالنا خذ بيدي بيده إلى العظيم الصمد أنت الذي توصل كل عبدي إلى مرادي بدون كدي أكرم من سجد الأشجار لأجلي وغادر الأنهار شكاوى إلي جمل المولى من فتن منه لما يلقاه وشهد الضب له الرسالة وظل وجيب بلا مجادلة وقبل رأس نبي الشاة كما بي قد أنبأ الرواة عين قتادة بدون ما الشفاء ردت كما كانت بالأمس المصطفى والبيت رمال مع الأركان ساجدة للمصطفى العدناني شرعت بسبيابه وسرور العباد بالعناد كلمه الضب وعن الجمع لدى الفراق والحنين يسمع من معجزات البدن الظلماء بين الاصابع بلا بلاي اكرم اليوم قدومي الجنان زينت كذلك الحور الحسان واهتز عرش الله والكرسي لفرح والعالم العلوي وجنة النعيم والفردوس والخلد والمأوى بدون لبس جنة عدن هكذا عليون أكرم بخير الخلق يا أحمد الأمين وهكذا دار القرار والسلام ذا كله من فضل خالق الأنام جعلنا من آليات تفضله بجاه شافع البرايا ذي العلا جاي قبلنا قصيدة بي من كوي في كتاب قرب benn bés muy ndékki yëkkati cër ca la muy ndékkee jox ni ma Abdou Aziz lu ma la jox lan laa la jox ma ne ko ganaar mu ne ban cër ma ne ko laaf mu ne ma déggal akrimi man bi jaayi awtaani laafa ganaari abduhu tijaani mu bindal boobu Cheikh Ajab Laay Si Maalik mbeew gaañi neena akrim bi man bi jaayi aataani am Abdou Mbaye laa fatanaari abduhu tijaani yaalaman aliyaa tafadula bi jaayi shaayi lbaraaya dil ula bokk yi ñu ngi santati yàlla mu ñu mayaate ci kattanam ak mbaaxam daaw bi ñu fiy teqalikoo ñu nii yal nañ ko fi dajewaat na gën ni déwén ci mbaaxam mu mayaat ñu loolu kon ñu ngi koy santaat di ko tàllalaat loxo yi di ko ñaanaat yal nañu yàlla may ñu fekkewaat na gën ni déwén ñi ko fekkewul ñépp yal na yàlla sëmbërtël mbalaanum njëggal ak mba ci seen kaw ci barke yonent bi di nuyu ñépp di ziyaar ñépp di ndokkeel ñépp ndax bés bi ñu nag yéen ñoo ci bokk yam bésu yonent bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa Cheikh Al Hadj Malick ci Jaksaaw képp kuy jullit rek am nga ci cër kon ñu ngi ndokkeel ñépp di ziyaar ñépp di feddali kóllëre ak bokk yi fi teew yépp di ñaan yàlla yal nañ yàlla defal jàmm jàmm biir ak jàmm biti ci barke yonent bi di nuyu di ziar suñu kilifa gi toog muy cheikh aboubacar mouhamadul mansour teewal fi suñu ay kilifa dale ko ci le xalif général de Tidiane Seyidi mouhamadul mansour si ak rakkam yi topp ci gannaawam yépp dale ko ci cheikh ahmad Tidiane si cheikh abdul aziz al amin këru nitu yàlla yi mbubb mu rafet ak hmm. colka yu rafet ak yooyu jariñu fi nit léeg-léeg nag ma romb nit ci biti <laughs> mu ne ma sëñ Habib da bëgg àdduna ma ne ko yéen ku leen topp sol ay sagarte te duñu ko def déedéet wallahi ndax kër sëriñ Haadi nekk naa fa ati yàlla benn dàll laa sol benn dàll ndegam aw ma dàll sax benn yére laa bëgg a wax benn yére Pape Makhtar Kébé seede la ci ak ñoom Pape Youssoufa Diop nii ay numaat yi la ñu mës a dem góor gi yónnee ndaw ni nañu ko fekk si ay numaat yi booba ñu nga ca daara ma ni man du ma dem parce que sama dàll lay seet ba ma ñëwee maraakiisam la ma mbeje mbej ni ma sa dàll nga ca kanam moo tax li may jënd dàll barewul ma ne su ma yëgoon jox ko bii rek mu dolliwaat <laughs> loolu du mbéjum soxor déedéet mbéjum defar nit la waaye yére yi lu mu rafet rafet nag mhm. teguñu ko fenn ndax loo rafet la rafet la gis ku la gën a bari le mhm. sëñ Babacar Mansour dégg naa ko ci julli tabaski wala korite ci at yi ñu génn mhm. mu ni loo siiw siiw am na ku la xamul loo siiw siiw am na ku la xamul am na ku la xamul. kon ndokk bi ñu yàlla baaxee kilifa goo xam ni muy Cheikh El Hadj defar na ay nitam ba bu ñu la waxul ni kii mooy diw doo ko xàmmee ki ñu ni mooy taalibeem ci waxin te moom nee na amul ak amul ay taalibe ay bokki jullit la am te loolu ñaanoon na ko bu yàgg. ca ba mu demee màkk atam ñaan yàlla ba li ñuy tuddee taalibe ci senegaal ak jabootu boppam gi mu jural boppam yàlla nañ dem ba kenn du leen xàmmee te loolu yéen ñépp teg ngeen ci bët kon li sëriñ Mbay Si Mansour doon wax ni kër gi ñaq fi jariñ doom loolu lañu gëm mm-hmm. ndax ci la njariñ nekk mm-hmm. kon nag ñu nag yéen ñoo bokk loolu waaye du ñu ko rek def e, yenn ànd yi nga xam ni daje jayante la dëdd jëwante mu ngi guddi bu ñu nuyoo ñooñu ñëpp ba pare ñu dellu siwaat nuyu kilifa yi nga xam ni itam ci wàllu nguur gi dafa mel ne monsieur le préfet bu Tivaouane mi ngi fi monsieur le maire ah monsieur le gouverneur de la région de Thiès mu ngi fi ànd ak une forte délégation ñoom itam ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen gëdd tabaarakallah mu mel na naga ni daaw am na lu fi xewoon mhm. naga ren mu sob yàlla mu ni damay indi la ma neex ndax moom maa bayna tarfati aynin wa intibahatiha yugayiru llahu min xaalin ila xaali waaw maa bayna tarfati aynin wa intibahatiha yugayiru llahu min xaalin ila xaali mu sob ko moom yàlla la mu dénkaane woon jox ko ay nit mu xëy suba jëlaat ko teg ko ci yeneen i loxo pexe jeex il faut l'accepter. accepter dogalu yàlla nag du ànd ak jàmbat ak sànni xeer. ak jooy ak jooy nangu dogalu yàlla dafa noppal jaam qulillahumma malikal mulk tuutil mulka man tashaa wa tanziu lmulka mimman tachaa wa tuizzu man tachaau wa tuzillu man tachaau bi yadika alxayr innaka ala kulli cheyin qadir mu sot ko mhm. naga ni daaw am ku fi nekkoon moom mi fi dul jóg dafa lay nattoo yu baree bare nga yaakaar ni ak pal la mhm. fekk na nattu la mu lay seet ba xam boo demee ba gis ci sa bopp ba mu jeex rek mu ni ko roseet teg ko ci loxo keneen lay pexe nag mooy muñ rek te xam ni mhm. xewle woon nañu démb alif laam mim gulibati ruum fi adna al ardi wa hum min baadi galabihim sa yaglibuun fi bidai sinin lillahi al amru min qablu wa min baad pexe amul li am solo nag mhm. mooy ñooñu tourné nañu la page nañu nangu te jéem a muñ rafetal ci bala mu ci ñaaw ndax ko mm. boo xam ni mm. dañ ko duy ba mu fees tegal la ko ci descente ni la tegal sa loxo dañ laa sagal rek boo tegee dina wàcc boo tegul dina wàcc kon nga teg ci rek rafet politique bu ma de déedéet ah. amoo jotam bu ma dafa am ñuy wax rek mm-hmm. waxtaanu jamono la rek mm-hmm. Mm-hmm. yàlla indi keneen koo xam ni moom foogu ko woon ki mu doon jële yëf yi ci moom am na fu mu foogoon ni fa la yëf yi di jëm mm-hmm. waaye yàlla toujours la ca sa gannaaw xalaat lay def kooka nag dafa mel na ci sama gis-gis amul chance trop amul chance du ngeen ma laaj lu tax dafa am ñu fi jiitu woon ku ci nekk sa façon boo doon doxal ba yàlla jële lëf waaye léegi sénégalais yi ci seen bopp ñoo ñor yeewul moom wax na ko sax nee na je suis président de tous les sénégalais loolu rek yaakaaru na déjà dëgg yàlla yàlla na ko ci yàlla yàggal ci loolu ci yoon woowu ak gëm-gëm boobu mu am ak gis-gis boobu wante diggante boobu laa wax lu ne xew na ci Sénégal yoo xam ni yépp nag dafa war a jeex l'injustice totale l'impunité lu neex waay def jël gor yépp teg leen ci gannaaw inna almuluka ida daxalu qaryatan afsaduha wa jaalu aizzata ahliha adilla loolu mooy seen aada mooy seen jikko waaye ku yàlla fal kenn mënulaa fol te fii ci Tiwaawan nag fu mel na fii ci Jaksaaw yàllaa fal seen folleeku bu ñëw mukk du am mukk du fii du fële ku yabu di leen bàyyi xel ku leen xel yaa ci erreur ba yàlla dogal liy xew yépp xew ak tension bi ak fi senegal tolloon ñépp jaxasoo ni réew mi dina tàkk réew mi dina tàkk man xamoon naa ni du mujj fenn ndax ay mag a ko lal ak ay ñaan te bokk na ci naasiril xaq bil xaq bi ngeen di dégg kon réew mi nañu delloo si waat xel yi sant yàlla maturité sénégalais yeeg nangam nangam jéeg nañu sant yàlla te delloo njukkal nitu yàlla yu baax yi ñu am te seen ay takkandeer des ci ba léegi yore kurus di ñaan te xam nga waxoon naa fi atam ni ittaqu daawatal mazlum yonent bee ko waxoon yàgg na yonent bi nee na na ngeen moytu ñaanu ku ñu tooñ ndax nee na ñaanu ku ñu tooñ dara doxul digganteem ak boroomam yàlla day wuyu rek yow miy tooñ mën nga xam li ngay tooñ waaye kay ñaan nag te waxu la dara bul xam fa muy yem bu yàlla intervenir rek lambaay ñaaw kon ñu ngi ñaanal ki fi nekk ak ñi mu àndal xamuñu leen mosuñu leen gis mhm. waaye ñoo bokk réew mi te ci kàttanu yàlla suñu kàddu du ci jóg ñuy wax waaw fii ñu ngi gis lu ñuy lu ñuy lu ñuy bëgge mm. ñun ñëpp ñu ànd bëgge ko oh. waaye fii ak ñuy gis loo xam ni ñun ñépp a ko rafetluwul dinañ ci àddu ci kàttanu yàlla dara la ci nit mënu ñu def ko nag lillaahi xaalisam innama nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura ndax inna naxaafu min rabbina yawman abuusan qamtarira lu jar a bàyyi xel la kon sëriñ Sidi Ahmed ñu ngi dellu si waat di la nuyu di la ziyaar Moussa Gueye déglu ma yàgg yàgg yàgg yàgg waa àggal suuf rek Hamish àggal suuf Serigne Sidi Ahmed. Mhm. ñu ngi lay nuyuwaat di la ziyaara di la santaat di la ñaanalaat yàlla mhm. ndax wuutu gi nga wuutu sa njabootu maam yépp taxawe lii te Serigne Babacar Sy Mansour waxoon na la ni la mhm. gàmm yi ñuy def ci biti fépp rafet na waaye jagsaawa ci gën a yey yow nag la ko yàlla cërale wax boobu tuutiwul kon yal na la yàlla gën a téyal yàlla jàppale la ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba at moo génn mu gën ci yow fuuf ba nga weesu te mu ànd ak wér ak talak fekke ci barke yonent bi ñépp dëgg nañ daf may wax ni ma Habib yow lenn mooy sa nattu ma ni ko ah mu ni ma sa franchise bu ëpp ma ni ko yow sa nattu xam nga lan la sëriñ mu ni ma ah ma ni ko mbaax bu ëpp yow Sidi Ahmed mbaaxam taggante wuñu de taggante wuñu mukk xam nga doye di weesuwul di wax nit lu koy bégloo doye di weesuwu ko te ñun bëgguñoo doye di <laughs> waaye mbaaxam ak façon bi mu koy defee moo ma yéem xam nga man mhm. boo ma tegee lu ma àttanul rek ma lànk ci saa si amul werante mu jeex tàkk <laughs> yaa xam nag nooy interprété waaye bu dee moom ci mbaaxam mhm. ku mel ne Moustapha Gaye dina ko rey rek ndax xam naa ni ci gàmmu jag saaw gi fu sëriñ bi di noppaloo sax du ko am ku mel noonu ci jamono mbaax gu dara raxul la sama ay doom di doomam suñu demee seeti ko wala mu ñëw fa moom jaar fa dafa leen di may ba ma tiit man man ndax façon may na wallahi te loolu képp ku ma ko bokkal loolu la ko seddeel ñépp a ngi fi kenn ma ci bàyyi ma fen bu ñu ko nuyoo nuyoo nuyu nuyu soxna Émilie bu baax a baax a baax fa tabaarakallaahu eh, eh, ndékki la ñëw na ca suba añ bi ñëw la mu àndal xam naa ni reer baa ngi ñëw ñu ñaanal ko yàlla boo am wujj rek ca kaw laa koy wax Mansour nee na ma ma maas nuun gi def ko au pluriel ndekki yii añ yii Mansour it nee ci la bokk tabaarakallah eh, daaw dama toog mu yónnee ma benn basin boo xam ni karaane naa ci ba tàyyi di wut ñaareel waaye mënu ko am ma ni mbaa du ñaan dama ko ñaanal moo ma faf topp nag karaane xale xamuñu ko xamu ko. karaane xale yi xamuñu ko xamu ko karaane xamu ko. xamu ko karaane. ñoom xale yi dosé la ñu xam. xamu dosé la ñu xam. ah Habib docteur Habib bu Serigne Moustapha Sy Jamil nee na doom yi tax nañu seen nopp ndeysaan tabaarakallah tabaarakallah kon ñu sant itam mm-hmm. dawaayir yi nga xam ni mm-hmm. ñu ngi ci Sidi Ahmed subaak ngoon di ko jàppale ngir rek bés bi jaar yoon nuyu njiit yi nekk ci seen kanam te di leen ñaaxaat rek ngeen gën a jàpp mu dëgër am na waykat bu ma dégg mu naan li nga jàppoon ba mel nii bu jig na la mm. oh. kon fi ngeen jàpp rek foofu la te gis nga man damay wax ni mm. gàmm ku ne mën na ko def ku ne ku ne mën na ko def ku nekk mi ngi koy def waaye li am solo <clears throat> man ni ma koy firee mooy Cheikh Al Hadj Malick euh, bu doon cin lu ñuy togg la man yi ñu baax ñépp am na lu ñu participer ci cin li ba mu demee bay waaja a sotti am lu ñu fàtte ñu gestu gis Maodo ànd ak xoromam di ñëw bu doon jamono bi jigéen ñi ajaa ajaa du ajaa ngeen koy wax kenn du ko dëbb kenn du ko motaxal ndax léeg-léeg ma dégg ci soose yi ñuy woy xilaasu zahab fi siirati xeyril arab léeg-léeg nga dégg ci suñu bokki pulla fuuta yeeg saraxule yi wallahi Maodo xorom la ci yëf yi de gaay xilaas bii xorom la ci yonent bi de yaa man atam ma xilaas yi ma mas naa dégg ci góor gi mu ni mhm. ku ko fanaanoo ci néeg mën nga dogu ci ni yeneen ci ngi sax yan nañu ko yàlla fayal mu ngi guddi te ni ñu sonn nañu waaye ci Sidi Ahmed mi ngi nuyoo mi ngi jottali nuyoo ak cant Mouhamadul Mansour Lo ak mbooleem yi nga xam ni Mansour li Mansour li Mansour li waaw ñoom ñépp ñu ñëw fi teewal fi suñu mbokk suñu xarit di wëllëre ci sëriñ Sidi Ahmed di Cheikh Ahmed Tidiane Gadio waaw am na itamit ñu ngi am na une forte délégation bu l'actuel président de la République monsieur Macky Sall yabal si ñu ngi nuyu itam au passage directeur de la douane Makhtar Cissé mu ngi fi Serigne seen moom itam di suñu cousin mi ngi fi fa tabarakallahu ku lim juum waaye ku ñu waaw euh, Youssou Mbacké Serigne Youssou Mbacké kooku doom la ci ñun mm-hmm. bu Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma mm-hmm. ñëw na fii représenté fii sëriñ Abdul Fattah Mbakke moom itam di doom ci ñun di doom ci Gaynde Fatma te kenn réerewul mbir diggantee mag Cheikh El Hadj Aziz Dabakh kon mbokk yi ci gàttal dama doon wax ni xilaasu zahab bu maam Cheikh El Hadj si bii du ma ni du ma ni xorom la waaye ajaala la ci waxin ndax ngeen gën ko dégg bokk kenn du ko ma kenn du ko dëbb laa dégg benn woykat di wax te bokkuñu ñoom ñaar caf ka yu bokkul Abdou Mbaye nee na bokkuñu wax na dëgg kon yal nañu ko yàlla fayal fayal ñu ay njabootam di suñu ay sëriñ yàlla bu yàlla dañ di wat wàcce leer ca fa ñu tëdd ca barzax la ca des mu delloo suñu ko ñu ñu di ci niitu ba bañ leen di fekk yàlla na yéex ci barke yonent bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi nuyu njob mbokk yépp di gërëm ñépp di ziyaara ñépp di ñaanal ñépp jàmm di ñaanal réew mi jàmm mm-hmm. yàlla na fi yàlla yokk jàmm yàlla def na ko fi ndax lii xew barki démb ku mu yeewul dootoo yeewooti waaw lépp nag ci yërmande yàlla rek ak ñaanu mag ñi ñu amul ñu dul ñoom ndax bu leen yàlla fayee lañu la defal yonant bi mhm. waxuma la Sénégal waaye àdduna yëpp xaj nañ ci kon nag yan na leen yàlla fay ngën ji pay ci barke yonant bi sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallama yàlla barkeel njaboot gi mhm. yàlla barkeel liggéey yi yàlla yombal dépense yi yàlla yombal yépp ndax jamono bi xaw na tar waaw wax dëgg yàlla yàgg naa wax ni askan wi sonn nañu askan wi sonn nañu bu ñu demee ba saaku ceeb di jar vingt cinq ci jamono ci jamono bi ñu toll mm. man euh, barki démb ba ma delloo dakaat sama ceeb jeex ma yónnee di jënd ceeb ba ma xale bi waxee prix bi dama waaxul sama bopp ba ca boutique ba <laughs> ni ko ndax dangaa juum walla déet mu ni ma juumu ma moom lay jar moom lay jar yàllaa ngi dogal nag xam na ñu njëg yi mhm. ndax du ñu jóg ci marché waaw waaw di duggi di dem di dellu waaw ndax suñu woy jur Cheikh Alxaaji Abdoul Aziz ci lañ ko oh, miine woon léeg-léeg ñu ànd ak moom jóge Dakar mu jaar daral ba maa ko wax jënd fa nag walla xar lu ci nekk mu yemale ko jaar ca épicerie ba nekk point E jënd fa fromage gruyère roquefort tête de mort et cetera et cetera yàpp ko ci oto wallahi ñu ànd ak moom bu ñu ñëwee kër bu ci nekk mu jox la ni la yóbbul jox sa ndey nangam joxal kii nangam joxal li sa bàjjan joxal li loolu yëpp jàngale la woon te moo di rek nit dafa war di woyof nit dafa war di woyof dafa war di yàlla rek a xaj ci rëy yàlla rek xaj ci rëy moo tax alkamaalu lillahi waxdahu mhm. su ngeen ci déggee ci euh, kàddu yoo xamante ni bii xëy na ñagas na trop ñu ngi koy jéggalu mhm. doomu aadama matul waaye li ñu taxoon di wax du gaaral kenn du jéem a sànni xenn xeer ba tax na kon boog nit ak la mu gëm lu ko ca choqué dafa gaaw mm-hmm. lu ngeen dégg ci jàngat mi wala wax ju bari ji luy niroog lu leen naqadi ñu ngi koy jéggalu yàlla bu mu nekk suñu mujj gàmmu fii yàlla bu mu nekk suñu mujj daje hmm. yàlla na yàlla mottali guddi gi ci jàmm hmm. bokk yépp kenn ku nekk delluwaat ca sa kër hmm. dugg ca sa biir néeg ni alhamdulillahi rabbil alamina te ku fi jóge yokk ba yëg ko wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh barakallah oh.